jërë ngeen jëf mbokku internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf Babacar ñu amati a baax ñu ngi amati mbégte bu baax tey ak moom tuuti ci ah, ak li nga xamante ne tey avancement bi mu gën a defaat ci làmbu ñu gis mu def loo xamante ne tey lu rafet àdduna bi yëpp ak lu làmb ñëpp di ko rafetlu gis ngeen li nga xamante ne tey mooy chaîne nga xamante ne tey Père Modou Beye liggéey na ko ci liggéey bu rafet ak anime bi nga xamante ne tey àdduna mbokki làmb ñëpp a koy waxtaanee ñu fas yéene koy jël waxtaan ak moom tuuti ci làmbu ah yi fi jaar ak yi di waaj ñëw mais Babacar noonu lay def rek di wax gars yi nañu xool li nga xamante ne mooy plateforme bi nga xamante mooy Teranga Vote muy plateforme bu am solo lool maa ngi nuyu ki nga xamante ne mooy ah, abi bu baax a baax ak ki nga xamante ne mooy ab Ablaye Ba depuis France di nuyu gars yi di jaajëfal ñëpp ñoo xamante ne tey ah, ñu ngi suivre plateforme bi nga xamante ne mooy Teranga Vote mooy plateforme bu am solo lool ci réewum Sénégal ak bitim rek ak ci àdduna bi rek ci duggee di ngeen xam programme candidat programme li nga xamante ne mooy ci côté élection yi ñu jëm ah Père Modou Mbaye ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare. waaw maa ngi lay fay Abdou. abu ñu ngi lay fay bu baax di di la nuyu. di nuyu suñu mbokk suñu mbokk internautes yi ñuy seetaan. ci diaspora bi yëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi nuyu ñëpp képp kuy seetaan Actubuzz muy sa site ñu ngi lay nuyu. di nuyu Babacar. bu baax di di nuyu samay bokk. di nuyu njaboot gi. di ñaanal njaboot gi di la di nuyu axlu làmb di nuyu famille làmb li ko tàmbalee si CNG bi président CNG muy Biraj Sène ba si suuf képp kuy dund làmb rek bokk ci njabootu làmb ñu ngi lay nuyu di nuyu ménager yi waaw di nuyu mbër yi mbër yi ndaw yi surtout ñoom laay gën a insister waaw di nuyu amateurs yi waa di nuyu fan si club yi supporters yi euh, di nuyu promoteurs yi ñëpp rek di siyaare làmb di leen jox seen wàccuwaay di leen jox seen respect di kontaan si yow si encore def naa yaa ngi ñëwaat. c'est la troisième fois ñuy jàkkaarloo wala quatrième fois. si wax lu baax. ak sa mbaaxaay. Mm-hmm. ak Actubuzz nu mu mel. Mm-hmm. ak nu mu duggee si làmb Actubuzz. Mm-hmm. muy site bu am solo. bu ñu war a bàyyi xel. bu ñu war a ñaanal. yàlla barkeel ko yaatal ko. ndax kat yaa ngi ci liggéey liggéey bu am solo. ànd si ak bi ñaan yàlla yàlla barkeel leen sàmm leen si barke Cheikhul Khadim sama sëriñ nag maam Cheikh Ibrahima Fall barke Cheikh Baye Góor ibnu xam nga mhm. ñun Cheikh Fall la ñu am waaw ñun Cheikh Fall la am ibnu Cheikh Moustapha Fall mhm. ñun Ndigal la ñu mhm. mm, ndax ñooñu ñooy moom la yàlla booleel ku mel ni ku mel ni Cheikh Moustapha Fall jur Cheikh Baye Góor Cheikh Cheikh Baye Góor jur Cheikh Ndigal ñooñu yéen ñaan suñu borom yokk seen leer ki fi nekk di Cheikh Ndigal di xalifaam yàlla na ko yàlla may wér may ko fan wu gudd di la nuyu rek di nuyu nag waa diaspora di nuyu nag ñëpp nag waaw di nuyu njaboot gi mm-hmm. fii moo fekk tout le temps rek mm-hmm. di ñaan yàlla def jàpp def barke ci kër gi def ko ci njaboot gi ci barke Serigne Touba jërëjëf aw ba ci kanam jërëjëf jërëngeen jëf Babacar Père Modou Beye waxtaan wi ñu dooree rek ci li xamante ne mooy ci làmb ak ñu gis ci li xamante ne mooy ci combat Modou Lo ak Boy Niang nga def ci benn trophée boo ci dugal muy loo xamante ni du rafet lan moo indi inspiration bi ak lan moo tax nga dugal loo ci làmb parce que yaa dundu dund làmb ci développement làmb ci nga bokk parce que tey làmb bëri na fu mu egg tey ci àdduna bi def ngeen ci tey lu am solo lool lool lool sax parce que keroog maa ngi dégg ma kat nga ngi di wax mu ne Père Modou Bey ku làmb ku làmb war a delloo njukkal ku làmb gën a war a mën a bàyyi xel la. dëgg la dëgg la abu sama doom. Euh, boo gisee ma def loolu. Euh, dama gis makan euh, mm-hmm. mu yaru. dal. Mm-hmm. ma gis ko daal gisuma gisuma ko daal mu mu mu maanaam mu doxee bopp waaw mu ñëw ci ay mu ñëw bàyyi moo fi nekkoon yàlla ko yàlla may wér mu père Gaston di ko ñaanal saa su ne yàlla may ko jàmm di ko ñaanal Gaston bu ba ndax Gaston am na lu mu def ci làmb Gaston am na le Don lu mu def ci làmb su demee ba ba mu jël doomam doom ba yaram ba mu jëm mag ba ba wàññeeku mu jël doomam indil ñu doom ji nekk ku yaru bu fekkee ñun nitu làmb lañu ay mag lañu dañ koy jël ko doom suñu xalaat ci làmb ak suñu ay suñu ay innovation ci làmb ñu yéene ko ko loolu moo indi ma def ma xalaat xalaat boobu ci moom ma ne ko am naa xalaat bu rafet munu ma lan la père ma ne ko am nga ceinture am nga drapeau trophée yaa ngi fi te roi de arènes la combat royal la diggante Modou Lo la ak Boy Niang nga ma gis ni nga ci sonnee ma gis cër bi nga ma jox dañuy defar benn benn benn benn benn chaîne en argent bu mag def ci def ci def ci médaille yu mhm. roi des arènes nga xam ne koo ko jox rek dina xam ne jox nga ko lu rafet mu siggi xool ma na ma per daal ma ne ko waaw lii daal ak ron mhm. arona sa arona ak ak ak ak che ak ak ak élage bu jéen mhm. waaw waaw ñoom ñëpp ñu apprécier yaa ngi dégg euh, Abdoulaye Ndiaye ñëpp apprécier makan na ma fi la ma si la ma gën a téye daal waaw gën ma jox cër. lu jiitu loolu daf ma njëkk a xool ne ma dama la invité face à face premier face à face. 2S ak Modou Lo maanaam daf ma gis daal jox ma cër daal xam ni. boo mag lañu te ñu ngi ci làmb ji. te abu ñun làmb dana la wax tey ñëwuñu fa pour dara. ba ma xoolee sax yoo xam nga xam jarul may sori. dëgg la gisoo ni ma téye sama bopp ci làmb. amul lu ma xamul ci làmb. xam naa lépp. dara ump ma si. fekk nit dafay tey nit dafay yiw nit dafay dafay regle ba ñu jox wallam mhm. mais lamb amul lamb amul dara lu mu ci muy muy lambi démb ak lambi tey surtout yéen génération bi <laughs> parce que sama colère ak yow ak ak actubeuse moo waral lii tey saa yoo jógee rek na ma père ñu ñëw waxtaan man la acca seen yar ak seen teggin mhm. ak seen worma mhm. ak bëgg lu baax te di leen ñaanal ngeen barkeel surtout yow surtout yow ak Babacar waaw fi nga bëgg a jëm yéen a ko xam yàlla na fa yàlla yóbbu te te yàlla lafal leen cat loolu moom booleeg makan makan nekk ku yaru loolu moom booleeg euh, Gaston production ma ñëw dugg si nag maa ngi ci biir léegi promoteur yëpp sax sama xarit la ñu boo gisee association des gis nga leen ni mu mel ak ñoom ak président Gora ñoo ñu ñëw créé boo gisee groupe baax gis nga nu mu meloon sama loxo la jaar boo gisee génération xarañ nu mu meloon laaj la ñoom ñëpp rek ñi ma lay limal ñëpp parce que li ma lay wax dama koy répété dama jaar ak ñoom fépp ba pare ñu jox ma teraanga muy jeunesse boobu yëpp jeunesse su làmb ci boobu ñoo ma ñoom ñoom ñoom ñoo fonk. ñoo ma fonk kon dama li delloo njukkal en tant que jeune en tant que doom mhm. en tant que bàyyi nekk ci làmb ji. Mhm. waa di leen jàppale promoteur yëpp nag. loolu moo boole ak muy xale bu yaru di ko ñaanal li mu jublu muy claf bi yàlla teg ci loxo ba liñ ci def lii muy honoré ñu honoré ko noonu ndax Makan xale bu yaru la waaw yàlla na yàlla def moom. loolu moo waral nag ma tëgg mhm. ma jox ko sama idée. jox ko couronne defar defar ko couronne bi bi muy ñëw tam bég na mooy waral fu mu toog rek di ko wax Arouna tam jàpp euh, macha allah Arouna Sow muy roon Cheikh El bu Dieng nga xam tamit luy njiit moom luy njaag moom la El Hadj bu Dieng nga xam ni xale yooyu yëpp daal maanaam doo mën a lim ñëpp ci Gaston production ba si ñëw Modou Anta liggéey bi rafet Modou surtout Modou Anta liggéey bi rafet na voilà liggéey bi liggéey bi rafet na mm-hmm. ñoom ñëpp rek El euh, euh, Abdoulaye Ndiaye mm-hmm. gis nga nu mu mel ci biir léegi moom mooy bañ a yàq làmb pour làmb avancer rek te Gaston loolu la bëgg Gaston bëggul lu yàqu. waaw bëggul lu yàqu. waaw dafa bëgg lu dem moo tax mu indi doomam. teg fi kon dañ ko war a jàppale pour mu réussir li bàyyam mébatoon ba dem ba kattan kattan day jeex ndax yàlla mayewul dafa dé dafa dafa able rek ba doomam ñëw loolu sant yàlla la kon makan dañuy ànd moom. si sutura ak ci teggin ak ci respect rek ak ci ban benn bañ ba wutuñ ci benn intérêt mm-hmm. bëgg yéen yéen ñëpp ngeen jëriñu rek te yàlla tax loolu moo ñu indi ci làmb moo ñu bàyyi ci làmb ji ba léegi sax mais amuñu ci benn intérêt waaw macha allah macha allah macha allah jërëjëf Père Modou Bey loolu am na solo Babacar li ñu développé léegi ci ci côté làmb mm-hmm. mais Père Modou Bey laaj rek ëllëgu Modou ci làmb lan la daal dugg na Pikine gis nga na mu def Pikine mm-hmm. Modou Lo fan la jëmaat ci làmb ëllëgam lan la parce que am na xale yoo xamante ni tey pare nañu na pour jox leen euh, ki waaw Modou Lo gis nga fi mu tàmbalee. Hmm. Euh, euh, tollu ni mbër yi mais jomam ak fulaam moo ko indi fi mbër mu ndaw la. Ah. moom sax il la se moom sax xam na ko. tollu ni mbër yi rëyul guddul rëyul. Hmm. mais yàlla yàlla def na ci moom doole. xam nga gaynde la. da gaynde gu ndaw boo ko xeebee rek mu lakk sa daay. Hmm. Modou gaynde la te lii mu am moo ko liggéey. waaw te jàmbaar la nag wax dëgg yàlla te gëm na boppam te gëm na entraînement mooy may lépp nit ki day entraîné mbër sportif. Mm-hmm. day entraîné dafa dem ba nekk ci niveau niveau professionnel. moo ko may lii. Mm-hmm. Euh, niveau professionnel moo ko may mu jël ko mu am combat moog Ama Baldé cinq ans. Mm-hmm. ñu naan nii ak nii néeg nii ba cinquième année bi mu nangu jël ko daan ko ndax ko ci xam-xam bu bëre. daan ko ak Ama doole ji mu yoroon. ak fukk bi mu doon demee ak ak ni làmb ci amoon envergure. Mm-hmm. ak nu mu naxee Ama ba daan ko. diggante no 5 novembre la ak le 1er janvier. Mm-hmm. deux mois mu mu mu jël fa mu jël fa Boy Niang. waaw jël tamit nekkoon xale boo xam ni mu woon si yoon. nekk espoiru làmb mm-hmm. Boy Niang nekk mbër mu yaru am nekk aveniru làmb mënuloo xool ñaari booy yooyu jox leen ne suy génnaat si roi des arènes bi ñaar ñoo ngi la ciblé muy Ama ak Boy Niang jël na Ama daan ko mais am ci victoire yal na yal na koy euh, euh, di ko féliciter ci Ama. di encourager Ama ndax ndawal tamit moom ba léegi ñàkkul. ci diggante boobu mu jël fi Boy Niang daan Boy Niang ak manière bi mu ko daanee bëri moom làmb ju rëy mu nekkoon événement boo xam ne kenn axlu làmb doon ñu ko fàtte histoire làmb dina ko bind muy premier janvier 2024 bii ñu jógee Modou Lo nekk ñëw nekk gaynde bëri fi bëri bu rëy daan fa daan bu rëy daan daan champion kon dañuy encouragé Boy Niang di félicité Modou Lo xarañ xarañ nag ni ko waxee rek fi mu jëm moom xam nañ ko. waaw ndax moom mooy choisir. ku muy la mais Tapha Tine mi ngi fi mën na bëreek moom. Mm-hmm. waaw man sama gis-gisu làmb euh, bu dee combat cassé. Mm-hmm. combat royal bu mag combat jànq mm-hmm. war na mën a bëri Tapha Tine si roi des arènes bi. parce que Tapha Tine excellent ci niveau boobu ñi ngi naan Reug Reug d'accord c'est bien ñi ngi naan Sa Thiès d'accord c'est bien mais ñun fi ñu gis ñun axlu làmb ñun mag ñi fi ñu gis ci làmb ak actuellement Modou ak Tapha mooy làmb ji mooy làmb ji su ko mënee suñ ko mënee tëgg muy gënal amateur yi mm-hmm. ndax amateur yi soxla ko combat boobu waaw waxuma ay Bawol ak ay Parcelles déedéet mais làmb moo soxla Tapha ak Modou Lo mm-hmm. waaw mu làmb moo ko soxla waaw ndax dañu làmb gis nga Tapha Tine fu mu jaar ak Eumeu Sène kon c'est logique na léegi couronne bi Tapha Tine bëre ko comme bëri woon na ko moog Balla Gaye mu ñàkk ko muy dawal bu ñu egsi fii kon Modou Lo ak ak Tapha war nañ mën a bëre couronne bi si xam-xamu lamb laay wax rek mhm. en tant que connaisseur de lutte di wax si lamb combat bi foofu la Abou sama journaliste bu mag bi borom Actubuzz waaw ci côté boobu lamb jooju mu nekk lamb joo xamante ne tey que ñu bari ñu ngi koy sàkku pour mu am ci diggante Tapha ak Modou Lo naan lamb ju ne la parce que jamono ji bawal tamit sonn nañ ci lamb yàgg nañ ci donc ñu ngi am ay xale yoo xam ne ñu ngi génn chaque jour mais Tapha Tine mu laalewaat ak nga parce que jamono ji dafa mel ne ay combat jànk ñoo dàkk mbër yoo xam ne mosu ñu bëri waaw xam nga xam nga bëri na mbër yu bëri mosu ñu bëri comme Tapha ak Modou Lo mosu ñoo bëree mosuñu laalee. Euh, ñu ngi wax ay revanche c' est d' accord revanche yi euh, Tapha xam naa bu am na revanche boo xam ni. moog la de guerre. xam nga revanche bu revanche njar la. waaw moog la revanche njar mais taf ñoom bool bool yi ñoom seen seen bët yëpp si si si couronne lañ ko teg. Mm-hmm. voilà si bëree couronne waaw. Mm-hmm. Ah, du question la yi ñoo jël ko déedéet. mais titre couronne Tapha am na mérite jël ko même Lac de Guiers sax am na am na mérite bu bëri couronne mais ku nekk da nga am sa sa sa boo boo boo joué ci làmb ji. Tapha Tine Tapha Tine actuellement fu mu nii ak ay allure bu mu nekk nii moom li li ko li ko li moom mooy moom mooy Modou mooy couronne bi mooy bëree ak moom ndax li fi nekk bëree ja bëree combat jànq bari na. boo ko limee bari na mën nañ ci wax lu bëree bari bari bari bari mais ñun lu ñu gis en tant que làmb log di di observer làmb di dund làmb nekk si. en tant que amateur bu mag Tapha ak Modou daal moom la axlu moom la amateur yi soxla fi mu toll nii. voilà xaw ma ban promoteur moo koy tëgg. bu dee Gaston. bu dee Aziz. bu dee Pape Dufal. bu dee Dieye production. waaw bu dee ku mu munti doon rek ñun soxla nañu amateur yi soxla nañu combat Tapha Tine ak Modou Lo xarañ surtout. surtout titre titre roi Reug Reug Lac de Guiers du combat bu combat boo xamante ne tey mën na leen permettre pour ñoom ñaar ñu ku ci génn mu mu la permettre nga bëri ak bëri mooy li wax xam nga xam mais yaa yaa ngi def calcul bu doy waar hmm. xam nga Lac de Guiers war a jël Reug Reug waaw waaw bu logique la combat bu logique la de Guiers ak Reug Reug ça dépend ci promoteurs yi sa dépend ci Lac de Guiers tamit waaw parce que nag damay dégg dafa am na xale bu ko jox respect. comme si comme Siteu dafa amoon respect am yar teggin mu accepté ak moom mu daan ko. Mm-hmm. par décision arbitrale ak lamba jooju ni mu demee. waaw ah, nag booy seet sax dañ ne Siteu Siteu moo am. succès ak ak nu mu jeexee. mais nee mos rek la guerre moo daan. kon rek la guerre war na mën a bëreeg Reug Reug mm-hmm. waaw mm-hmm. mais communication dafa am solo ci mbër. surtout xam nga mbër mbër dafa war a mentalement mbër dafa war a xam bu bëggee dara ak fa mu koy bëggee dafa war dafa am fu mu jaar mooy respect bi ak cër bi parce que sa kilifa kenn du ko forcer nit bu la jiitoo si néeg bu lëndëm moo lay woon fi ngay toogee soo bëggee dara si nit doo doo doo agressif yaa ngi dégg da ngay da waxtaan sa entourage bu ñuy génn sorti nañu dem ak mantal dama dem ak fair play esprit fair play ndax lu jot yomb ndax yàlla moom mooy dogal rek kon communication dañ ko war a sellal gën ko ndax loo bëgg si lu baax rek abu mi ci communication bu ànd ak moo la koy may. sport la bu la neexoon doo ñëw fii ndax ñëw nga ñëwaat kon respect moom moo respect moo nekk suñu diggante ma ak yow en tant que baay ak doom kon nag bu fekkee dañ nekk làmb ji ay ñëpp communication la dafa communication dafa war a sell. day defar làmb day defar làmb surtout. day day day day maanaam day defar sa personnalité. Mm-hmm. ak loo ti bëgg rek ak lu ak loo ko mën a soxla soxla soxla soxla bul agressif pour jëli ko. da koy négocier naxante ak moom pour mën ba am ko. kon Reug Reug ak euh, Lac de Guiers bu neex la ku ko tëgg di nga am combat. buntu la tamit pour roi de arènes. waaw ba tey. waaw ndax damay dégg damay dégg Modou Lo ne. dañuy jël di combat jànq yi la ñu war a jël moom yàgg na ko Modou Lo ah, moom moo dàq moo tax mu jël Ama Baldé jël Boy ñaa Modou Lo wax na ko mm-hmm. nee na Lac de seen fii Eumeu fii Balla Gaye fii fii toujours même les mêmes têtes amul sens day rey làmb waaw nañ jël ci booy yi Franc ngi fi ah, Franc ngi fi war a mën a ñëw xoolal Jackson 2 xool xool xeeru xeeru xeeru xeeru euh, euh, euh, caatu Yoff ay champion xoolal xoolal même ñàkk jariñu bi sax mu ngi ci lancé xol xolo xolo soq. Mhm. soq bu jógee ñëppay jóg. du dëgg mhm. kon ñooñu ay révélation la ñu. ñu mbéy guy gi xool mbéy guy gi nu mu mel. ama neex dégg Moussa Ndoye ñibbisi na xool Diène Kairé ñàkk na mais c'est un c'est un futur jéen uh-huh. Bébé ñàkk na c'est un futur champion. du dëgg ñooñu ñëpp mën na leen canaliser ci biir la voix des rois des arènes ñoom ñëpp ñu ngi ci yoon woowu. mais lépp communication dafa war a sell ndax soo buggee dem ci mag kaw mm-hmm. te nekk ci suuf. da ngay sa loxo dafa war a set pour nga mën a yóotu mag ñi ci kaw. mooy wax lu baax. Mhm. négocier sportivement ba am li nga bëgg parce que loolu mooy làmb. mais mais boo xoolee ci côté staff Boy Niang ñu bari Sénégalais yi bari ba ma génne ma leen Boy ñaar Reug Reug yoonu làmb la mais dañ ne day côté ba ñu ne dafa métti. waaw Boy Niang Reug Reug. dafa diis. waaw dafa diis man je préfère. je préfère je préfère Reug Reug rek Lac de de Guiers waaw wala booy ñaa Siteu. combat la. bu neex la Boy Niang Siteu. waaw combat bu neex la waaw enjeu la. waaw xaw ma duñ bëre xaw ma ñu bëre. ndax maa ngi dégg maa ngi déglu déglu ne jàmm nga la dëkk. maam maam maamu booy Niang xam nga affaire famille bu duggee rek. mun na am benn jeu mais mais lamb la. <laughs> lamb ju neex la. booy Niang mm. ak Siteu combat bu neex la. ah ak Ama Baldé. waaw kooku mooy combat kooku kooku mooy com kooku mooy combat bi nag. dëgg la waaw mooy. mooy Gris Bordeaux na jël beneen avance jël avance Boy Niang boole ko. mais ba tey mais mais ba ba tey même même même même su ko neexee mën na mën na mën na mën na jël Boy Niang. waaw Gris su ko neexee mën na jël Boy Niang. waaw teg ko ci. xam nga kon nag foofu. combat yi mën na ci tànn lu bëree bëri bëri bëri ci lamb ci neexaayu lamb waaw ci lamb rek waaw yu mën xam xam mu ñun mënuñoo far amuñu ñu far mais boo calculer lamb yooyu yëpp mën na génnaat ba lamb dekkiwaat ndax lamb dekkiwaat na nii ndax instant yi nag waaw lépp lépp lépp lépp lamb la cool yi moom mooy lamb gis nga kanji production woo ñu dimanche la 14 bi diggante Fils de Balla ak Lac Rose yow tudd nga nag ku baax foog foog nga defal ma foofu entre parenthèse si kañ production borom ETDR ah établissement Touba Darou Rahman mm-hmm. waaw muy jëmm ju baax mm-hmm. muy jëmm joo xam dama ko yóbbante message bi Babacar mm-hmm. euh, kanj nañ ko ñaanal bu baax a baax euh, xale bu baax la te donte bi mu gëjee dëgg làmb yàgg na mais teewul musul loo xam musul génn ci làmb chaque dimanche yaa am gis mu toog ba tey mu dellusiwaat tëggal lagrose nga xam ni booy jàpp gaynde ak fakk tëdd ah, ak ku am fit ku ñeme ku mën a xeex ku mën a bëre mooy Lac Rose waaw ku am fit te ñeme te am te am arñe j'attaque je koñ kooku yàgg na ci Lac Rose muy xale bu am jom mën a bëre tolof tolof mënut a ñàkk ci ndaw ndax yoonu ndaw du gaaw mais ni ma gisee ni nga ko waxee ni ma gisee ñëwaat na mais mi ngi dajeeg booy boo xam ne oh. dafa nekk ci yoon fit bu rëy ñeme na ku ne woon ku ne woon Fils de Balla dina dina cabaxal góor soog ah. nga ko ku ne dina yoon Tapha Leer nga ko bu ku ne woon dina faaxat mu def kat at bi mu ko ndomb kenn kenn gëmu ko woon benn benn amateur gëmul woon na Fils de Balla dina faaxat général Malick ci mbapat daan ko ci mbapat kon yooyu dafa am sens muy booy bu am solo muy combat boo xam ne kañ tëgg na ko muy le 14 janvier bi ñu jëm muy dimanche prochain diggante Lac ak fils de Balla muy waree Guédiawaye kii di waree Grand Dakar usine ñaatari ñëw muy lamb ju neex lamb ju riche di ñaanal Kandji mu mu dugg seeg jàmm mu am ci ndam wax ma dara mais spécial bi rek diggante ñàkk jariñu ah, loolu rek grand la waaw grand la ah, ndax ku ku xam caatu yoof eh. si arañ bi si taxawaay bi ah. si si bëre ñaari loxo yi ku xool ñàkk jëriñu nga xam ni daanaka bukki timis la soo koy dàq bul nelaw waaw saa yu ko touché dina la bëreloo waaw diggante moom mu Jackson gi nu mu mujjee. waaw lamb ji la fa bëree. voilà daan nañ ko. mais il n'est pas waaw lu fa bëri mu rëy. kon nag boo amee journée bu mel noonu muy Kandji production dañ koy ñaanal yàlla defal ko ci teg ci loxo bu sedd mm-hmm. mu dem ci jàmm mm-hmm. ñu seddal ko ci jàmm mu jeex ci jàmm. Mm-hmm. que le meilleur gagne waaw kañ ji daal kenn du moom kenn du moom maa ngi koy maa ngi koy remercier bu baax ni ko ñaan ci doole maam Cheikh Rafal barke borom daaru Rahman mhm. mi ngi yaakaar mhm. yàlla suturaal ko mhm. waaw kontaan bu baax si combat boobu jërëjëf Babacar xam naa ñu amoon ci temps jeex na may bàyyi rek suñu papa mu tàggatoo waxtaanu làmb dafa neex. waaw fu laal rek da nga naan fii a <laughs> fi nañ desandi. mais di ñaan jàmm ci réew mi di ko ñaanal moom mi yàlla may ko gudd fan ak wér lool waaye. di ñaan promoteur yi nga xamante ne ñu ngi dëkk ma làmb yàmb yi ñu dëgg tëgg yëpp yàlla defal leen jàmm ak salaam surtout maa Kanji Kanji moom nee naa man suma xarit la dañoo yàgg lool depuis jamono Ibomar xam nga ci combat yi ndaw yi ñun ak kanji ku nit ku baax ku mun a dimbali doomu adama di ko ñaan yàlla suñu borom defal ko jàmm ak salaam defal ko tawfeex baax a baax permode bi waaw dama ñëw ne ko euh, Boy Frontière dafa tawat jàpp si rek nit ñaa ngi si jàpp sax mais yow dugal sa loxo waaw mun ma ànd ak mobil mobil waaw mobile tamit nit ku baax la mobile bu Grand Yoff waaw ku xam social la voilà fa la jaaree sax ci mobile naan nam xam naa kanji mais mobile mu am na social am na yërmande mobile 2 ku jar bàyyi xel la billaxi waaw bi ma bi ñu ci waxtaanee rek daf ne ma père dañ ciy jàpp ma ne ñëpp jàpp nañ ci sax waaye yàlla mooy wéral waaye dañ ci dugal suñu xëy na xëy na xëy na gémmiñ yi am barke wi xamu ko waaye def sa loxo bi ma ko waxee dafa génne alal yu bari jox ma ñu jox frontière ak yaayam ñu yóbbu di ko faj ba léegi bi xoolal ba léegi ñu ngi koy traité ah, benn moom mooy diaspora bi dañ leen di sant bu baax ku mel ni Bay Toldo borom baax la ku mel ni Dave waaw donc nit ku baax la ku mel ni sa sa coach Bakary. coach Bakary. yóbbante nuyoo ne bu mu bàyyi làmb dafa bokk ci waaw bu waaw wax ko. ne ko père na. Mhm. bu mu bàyyi làmb. waaw day neex. làmb dafa ànd critique. dafa waaw làmb. Ah, bu mu bàyyi moom dafa bokk ci lamb na ko avancé la. parce que mbaytool doon noonu la mel Toumani. Mhm. yaa ngi dégg Serigne Ndiour. sama xarit bi xale bu baax xale bu xam teraanga sëriñ Ndiour waaw booy nekk diaspora bi daanaka booy seet dañuy ñoom dañuy dundal làmb surtout surtout surtout Mbaye Toldo mhm. surtout Dev ñooñu duñ leen mën boo xoolee daal maanaam ñooñu dañ leen di sant di ñaan yàlla foofu ñu nekk ñëpp nekk ci diaspora bi mhm. di dund làmb di doomu Sénégal di doomu réew mi mhm. nekk ci àll bi yàlla na leen yàlla defal jàmm di leen souhaiter meilleurs vœux année 2024 bi ñoom ñëpp année bi ñu nekk muy 2024 yal na nekk année bu am solo si ñun année jàmm si réew mi élection yi jëm yàlla def si jàmm ndax jàmm si la lépp xaj waaw nañ dem ci élection yi si jàmm mhm. réew mi nekkaat fu mu nekkoon koom-koom yokku mhm. xam-xam yokku mhm. wér yokku ñu dimbali ñu si borom kër yi ndax réew mi métti na ñu jëm si jàmm élection jàmm ak salaam lañu soxla parce que jafe-jafe yi rek bu ñu ci tegee leneen réew day métti kon yàlla na Sénégal am jàmm di ñaanal ñëpp di la ñaanal di ñaanal Babacar Euh, di kontaan daal di mm. kontaan xam nga la xam nga lépp mënu kenn mënu wax lépp mm. mais li ma war a wax ci làmb mm. bari na mais dañuy dagg rek dem ba beneen yoon dellusiwaat rek waaw mën a nekkaat ci làmb ndax ñu dañoo yéene làmb jàmm dañoo yéem képp ku nekk ci làmb di dund ci làmb muy mbër mu ndaw muy mbër mu mag di ménager di promoteur di fan club ñëpp am jàmm ku nekk jël sa wërsëg dem ndax c'est la famille ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te ay bokk du ñu reyante jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë jëf père waxtaan wi am na solo lool ci làmb Babacar yaa di joxante dig daje rek nee naa ba yeneen i jotaay ak yeneen i waxtaanu làmb noonu la ñuy def rek yëkkati jotaay bi incha allah bi làmb la ñuy topp mooy suñu liggéey mooy suñu lépp di xool làmb nu muy doxee ak di ko avancé di ñaan journée la 14 bi réussite total di ñaan ci làmb jooju jàmm ak salaam mbër yëpp yàlla defal leen jàmm ñu bëri si jàmm daal jeex si jàmm Babacar jërëjëf Maka